ñoo ngi ci biir ascenseur bi mais fi nga xam ni euh, suite bi nga xam ni moom la sëñ taxaa jëm ascenseur bi ci biir néeg ba la jëm moo tax léegi booy dem boo bësee du dem il faut que nga am clé nga door a appuyer mu dem léegi da ngay xool summi leen seen daal ndaxte bu ñu egg ci néeg bi directement ci wetu lal bi lay ascenseur bi taxaw nga xam ne sëñ bi bu ñëwee bu duggee ci ascenseur bi rek ci lal bi lay lay egsee lañ ko réserver. biir màkkaanu Mbaye Gueye EMG di dalal bërëb bi ñu jagleel xalif général des Mourides dalwaay bu mucc ayib la njiital EMG beral Serigne Mountakha fii ci biir këram gi Farès ak Ngent nekk fii ci Thiès. bisimilah rahmaani rahim gis nga ascenseur bi eh, ak digganteem ak lal bi mais soo xësee ba egsi fii rek. Euh, léegi ascenseur bi duut marché soo toogee bu ma toogee damay bañ a toog ci lal bi day am nii léegi ascenseur bi bokkatut amatul image actuellement kenn mënatu ko utiliser donc boo ñëwee ci lal bi encore ni ñu ko wane nii lal bi c'est télécommandé noo bugg sëñ noo bëgg mu mel ni rek ni lay mel no bëgg mu mu gatt ni lay gatt encore ci ndolay ci ci no bëgg mu mel rek lay mel ci ni ko tande ak ak ak ak kii serigne bi waaye nag fii itam moom mooy salle bi nga xamni ni lañu réserver pour serigne bi ak ay ganam fii nag doo fi fekk kenn ndax c'est réservé pour sëriñ bi bu fi ñëwee fii la ñu koy moom lañ ko waajal pour su fi ñëwee moom. lépp lu sëriñ bi di teewoo mi ngi ci bërëb bi moo xam jàkka la wala li ni mel. ñëwal nga xool nag léegi tam boo ñëwee moom kenn mënu ko defal barab ca doo ci def jàkka ju nuroog moom boo génnee ci bunt bi. boo génnee ci bunt bi yaa ngi ñëw ci jàkk bunt bi fii lañ koy defale ay xéewaleem gis nga fii moom mooy kii bi jàkk jàngi ngi nii fii la ñu ndax moom jàkk eh, ni ma defoon ci ci kër Serigne Touba gi jàkka ja ma defoon ci kër Serigne Touba ak décoration boobu même chose la ñu defaat fii

su fekkee jóge na fii tam am na fii itam jardin boo nga xam ni c'est c'est réservé pour sëriñ bi. que jardin bi pour sëriñ bi la. gis nga bu jógee ci jardin bi jàppukaay yi nii mel. war naa leen barab boo xam ni ay nit ñëw nañ fi ba sonn mënuñu xam ci kaw lu fi nekk ay nit ñëw nañ fi ba tàyyi boo leen laajee fii dañ naan fii xamuñu lu fi nekk ndaxte eh, ku yàlla dimbali ba sëñ bi man laa seet si yàlla dimbali la ba nga xam ni boo nekkee fenn sëñ bi fekk la fa li nga am ci teraanga xeeb nañ ko lool bu laay buñ mënoon defar ay miir yi ay or def ko ay jamaa ndaxte nag Serigne Touba loo ko defal rek la ñu def ca barabu yonent bële su ma ko mënoon dinaa ko def fii di xam ni jàpp ni sëñ Mountakha dina ñëw rek eh, dugg fi toog fi julli fi ci jàkk ji tëdd ci néeg bii nga xam moom laa ci prévoir nii loolu dong nag mbégte moomu aw ma bu ko ëpp ci ci ci àdduna ndaxte jàpp nañ ni ñun bépp trang boo xam yàlla jox nañu ko rek dañu jàpp ni loxo sëriñ bi ci biir ba tax na moom nag mënuñu ko jox lu ko jëriñ ndax yàlla def na fi mu toll nii dara safatu ko du neex neex du lu muy sol du lu muy nàngam yàlla rek ko saf ñun nag ñu yaakaar ni daal xaaral fuñu xalaat na fa dem nañ fa defar jàkka joo nga xamni bu diké rek loolu lay jëk xol liggéey ko Serigne Touba ji réussite bi nit ñi wax yépp man bima ci gis xam nga xam la la timis ga ma ak mom ci jàkka ji mu mu téen xool ko xol bi sét ci kër Serigne Touba loolu it lay xaar fi motax ma jël copier ko defaat la même chose لمنتقى وجهت في النكار ما دونه شكر والله دما دلو سيرن بلي موم wallahi maa la ko wax te sax da nga nan waxuma la lim mom waye lim mom ci man sax eh, munuma ko delo lepp ndax sama lepp mom la suma lepp mom la xam nga dañ ne la wéy ca wéy le suma lepp la ak man nak mu tombe man ak man sama lepp mom la yakarna ni nak préparer Serigne Touba place defar ko ba ñepp daw ko ñew nga xép ko koku mom yëfam la delo na sëriñ bi li nga xam mooy am momé la damay jakk rek ni luma ma suma ma ko defee mu rafet wala mu sel wala mu ñuruk sëriñ rek ma jëm ko def ci bërepp bi makoy su fi ñëwé mbay gey mg di nongo lu farlu ci sëriñam di wajal ganub ties gi mu wara dalal sëriñ muntaxa ci wër yi ñi jëm لمنتقى وجهة في النكال